yoon suuf yu mu yëkkati ay kàddu jëmale ko ci ñi nga xam ne moo di am ay mbokk yu ko ba jamono ji je crois bien mi ngi mandat mm-hmm. wax naa leen ko man ne naa leen nañ ko baar rek parce que itam wax na ko ba pare euh, na bàyyi xel rek parce que nit loo gëmul da nga cay teey loo bokkul da nga cay teey lu sa yoon nekkul da nga cay teey parce que bu fekkee am na ñu ko ko waxloo wala am lu ko waxloo tey moom rek ni ci kaso ba tariqa yi suñu bos sax laay wax tariqa bi nanguwul loolu waxoon naa ne ko boo xamoo bàyyi li ngay yoot ti dem ci li lay boo xamoon li lay yoot da bàyyi li ngay yoot ti dem ci li lay yoot li ko yootu ngi loolooy li ko yoot te am na chance parce que buñ ko defuloon noonu am na nit ñu dof-dof goo xam ne buñ ko bekkee betteer nañ koy gaañ parce que dafa laal seen pas-pas laal seen ngëm-ngëm laal lu ñuy wax bés bu jot pour lan mu koy laal loolu mooy erreur bi laa ilaha illallah allah allah jawharatul kamal salaatul fatiha loolu lu ci ne istixfaar lu ci ne loolu dara nekku ci yonent bi lii moo ko moom lii yàllaa ko moom lu yàlla moom li yonent yi moom loo ko loo ko kaase mm-hmm. loo kaase waaye fekk na yàlla bëggoon na mu mos kaso moo tax mu wax loo ko loolu yàlla ko sew mbir la bëgg na kii mos kaso parce que xëy na yegg na foo xam ne jàpp na ne warul warul mos kaso mu yàlla nag jaarle ko foofu pour mu mos kaso nag waaye mbir yëpp ci yàlla la ne waaye na moytu tariixa bi keneen ku mel ni moom it na moytu tariixa bi tariixa bi du caaxaan loo xam ne cheikh moomu ko yonent bi moomu ko yàllaa ko moom jox ko yonent bi mu jox ko cheikh cheikh jox ko ay jëwrinam ñu koy wesaare kooku dang nga ciy teey boo ci teeyul da nga da da nga gis lu la neexul da nga ciy teey ti gën a def nañ ko lool ba mag ñi dañ ko baal waaye konoon kon dana gis lu métti waaye nag gannaaw def nañ ko loolu baax na waaye konoon dana gis lu métti de waaw parce que tarixa bi du caaxaan xam nga ne lu alaaji Maali nekk ba nelaw ci baaba ka nekk ba nelaw ci maam alaaji soo nekk ci ba nelaw euh, Cheikh Omar Fouta nekk ci maam Amari Ndaak nekk ci maam Ibrahima Niass nekk ci ñoom ñëpp ñu nekk ci loolu ba nelaw yow nga xëy rek ne loolu baaxul ah loolu mooy lan naan bidaa bidaa biddaa duñ ko wax biddaa la ñuy wax biddaatu la ñuy wax badiicu samaawaati wal ard loolu la lu ñu sos yàlla moo sos asamaan parce que gisu ko fenn waaw kooku moom mooy badiicu samaawaati wal ard moo bu sos suuf gisu ko fenn sos maanaam sos mooy loo xam ni gisoo ko fenn nga amal ko waaye bu dee lii yonent bi lim fi bàyyiwul bëri na am na ci lum ne moom am na ci lum ne loo xam ne yonent bi bàyyi ko fi yonent bi daaw dugg oto daaw dugg watiir yonent bi daawul yor caméra yonent bi daaw yi ñuy def yëpp daaw ko yor waaye yàllaa ko yàlla mooy avancel addunaam yonent bi santuñ ko loolu dañ koo sant pour julli di gëm yàlla di jaamu yàlla loolu la sant loolu sant yonent bi mu ngi ci la man ba mu demee ba def la mu man ba dem Ababacar Saddiq jël wàllam bay ca tool ba bay ca tool ba ba jógee fi jël wàllam bay ca tool bay tool ba jógee fi Ousmane jël wàllam bay tool ba ba jógee fi Imaamu Ali jël wàllam bay tool ba jógee fi léegi nag mu wesaaroo mu wesaaroo donc loolu la ñu bàyyi loolu waaye sa bàyyi bàyyi kër bàyyi ca baar sa baay dee nga dindi baar ba def ko daara aay na bu sa baay ñëwee dana ko kaas du ko kaas de kooku aayul euh, Maodo nee na bidaa mustahsan rafet baax na nee na bidaa bu rafet baax na waaw bu rafet baax loo xam ne lu rafet la waaye lu rafet kay kenn du ko ñaawal lu ñaaw ak lu rafet du benn lu ñaaw nii la taxawee lu rafet taxawee nii voilà ba defee na góor góorgóorlu rek na bàyyi loolu ndax réew mi ñëpp mbokk lañ ñëpp mbokk lañ sunna ahlu sunnaak nangam nangam yëpp benn lañ bokk lañu rek ñoo bokk ñoo bokk yoon wi ñoo bokk lépp gëm waaw mm. yow euh, fi ma bëgg a dugal bu fekkente ne da bëgg xale bii te du jullit ku jullit ak kuy jullit du ñu sëy jullit ak ku dul jullit du sëy jullit biñ la wax ne mën nga koo takk mooy ki d'accord ne Isa jaamu yàlla la du doomu yàlla mais Isa jaamu yàlla du yàlla kooku mën nga koo takk ndax moom du mushrika du mushrika bokkaalewul deful dara waaw waaye ki ne Isa doomu yàlla wala Isa yàlla wala yonent bi doomu yàlla wala yonent bi yàlla wala euh, Moussa doomu yàlla walla euh, yàlla la wala Ibrahima doomu yàlla wala ñooñ doo takk seen doo leen takk képp ku ne bi yàlla la wala ngeen doomu yàlla doo takk doo takk ku bokk ci moom ci jigéen parce que bokkaale la dafa bokkaale kii bokkaale doo ko takk waaw kooku doo ko takk waaye ki nga xam ne dafa nangu ni muhammad kat ja abduhu wa rasuluhu muhammad jaamam la yonentam la waaw kay man ngaa takk ndaw suusu waaye kii nga paaral ne yonent bi doomu yàlla wala yonent bi yàlla ba ko foofa ba mu gis ko wax loolu mu takk ko ñu bokk ñu bokk seen seen yoon. léegi kon ki gëm ko bëggee waajuram wala keneen ne soo ko bëggee da dem ñaani ko ñu may la ko ñoom nañ la koy mayee bu fekkee mën nañ la koo may ci yoonu jul d'accord nañ ci nga dem ci lislaam ñu may la ko ci yoonu lislaam waaye nag léeg-léeg nga bëgg a bëgg a bëgg dugg ci diine sa waajur bañ sa waajur day bañ su bañee du nangu may ga loolu mooy mooy problème bi waaye bu fekkente ne nangu na ñu maye la demal nga dem ci lislaam ñu maye la ñu ci bëri seen waajur duñ nangu ngay dem ci lislaam ñu maye la waaw ngay dem ci lislaam ñu maye la seetal mag mu baax mu am diini ñu maye la waaye lii ma la wax nag bu ko fàtte bu ko fàtte na fekk abdullahi wa rasuluhu moo fa ne waaw abdullahi ki ko ki ki ngay bëgg nay jaamu na wax ne isa jaamu yàlla muhammad jaamu yàlla euh, ibrahim jaamu yàlla moussa jaamu yàlla bu ñu ne jaamu yàlla lañu ak jeex na mën nga leen takk waaye buñ ne doomu yàlla lañu wala yàlla lañ doo leen takk na ah. déedéet déedéet na tuub ba pare nga doog a takk ku tuub boo tolloo ci yow gis nga yow mii yow mii lëf nga nag déet moom dangaa ñëwuloon bële waaye booba wax na loo garaaw fii waaw tey mu waxaat lu garaaw waaw dégg nga gis nga Ibrahima bu fekkee ne ndaw si ak noo ca mën a yegg-yegg xanaa sa yàlla la gënal sa yonent la gënal yonent bi la gënal yàlla gënal la te mu ne na tuub na tuub bu nanguwu tuub ba tuub dugg ci baat seede yi mu wér ne kii tuub na booba man ko takk waaye bu wérin ak foo mën a toll ci moom doo ko takk boo boo mooyee moom ñu duma la boo amu amagoo jabar ñu duma la téeméeri yar lañ lay dóor téeméeri yar lañ lay dóor su fekkee am nga jabar nag dañ lay rey waaw ku njaalu noonu lañ lay def boo amul jabar téeméeri yar lañ lay dóor soo amee jabar ñu rey la dañ lay jamat di la jamat di la jamat ba nga dee su dee jigéen amul jëkkër bu dee bu njaaloo téeméeri lañ koy dóor su fekkee am na jëkkër bu njaaloo dañ koy rey dañ koy jamat di ko jamat di ko jamat ba mu dee bo ñoo góor jigéen ñi noonu lañ koy def buñ paree dañ leen sang sang leen ñaana leen yóbbu leen ci armée leen sànni leen fa suul leen buñ leen suulee yàlla xam nag kii dee ba pare kay yàlla xam dama ne jullit ak yéeféer du ñu sëy <laughs> su fekkee nag noonu la sëy nañu du ko donn yéeféer du donn jullit jullit du donn yéeféer déedéet sa baay tey su bàyyi woon alal ju bëri te doo jullit doo ca donn ca donn soo woon te doo te doo jullit sa baay di jullit du ci donn dërëm ñi bokk yow daal ñooy ñooy seet alal yi ñu koy def waaw nañ ko yóbbu baytumaa rek waaye du doo ko donn du la donn yéen ñaar ñi nekkul jullit su ngeen nekkee jullit nag da ngeen donnante waaye jullit ku dul jullit du doon moroomam ko ci da nga naan ngay jéeféer sa baay di jullit nga doon alalam ngay wax wala yow ngay yow nga sa baay di yéeféer yow ngay jullit nga doon alalam loolu ngay wax ah déedéet <laughs> waaye fi fi jamono tolloog fi yow lu ñu wax ngeen ne jamono yow mii yow garaaw nga de lu ñuy wax rek nga ne waaw waa xam nga jamono fi mu toll mooy fi nit ñi toll loolu mooy jamono buñ ne jamono nit ñee tax nit ñee tax buñ nag mooy këll bi mooy néeg kër gi kër gi moom amul coow waaye jamono am coow mooy nit ñi waaw mooy nit ñi bu fa jamono tolloo te yow nga jàng ni lii waruma koo def sama yaay du jullit man jullit laa waruma koo donn jeex na wala sama yaay kër jullit la man duma jullit waruma doon doonte ma ëpp alal ci monde bi da ci lekk dërëm moytu ko parce que kulu mimmaa razaqnaakum xalaalan tayiba yàlla nee na lekk leen ci li ma leen jox ci wërsëg li ca lew ti ti ti sell lii lew la parce que bokku leen diini su ngeen bokkoon diini nag baax na waaye bokk leen diine bu leen fàtt nag li ma wax dama ne ki bokk ci Muhammad te wax ne doomu yàlla la Muhammad yàlla la doo doo takkanteeg moom leen fàtte loolu ki ne ki ne Muhammad doomu yàlla waaye du yàlla doo takkanteeg moom waaye ki wax nag ne Muhammad jaamu yàlla la danga nga takkanteeg moom waaye du leneen am muy yóbbaal dafa am sànq da nga yëkkati ñuy xalaat naataango yu nekk fekkee alors Sénégal ci li waxoon fii envers Mame Mbaye Niang est tey jii euh, kii di monsieur le mën na leen jégal euh, ba ñoom a dem yeggale seen liggéey ñu ngi waaw moom mën na leen xam nga baale yàlla dafa wax ne wa an taafu xayrun lakum su ngeen bale woon de moo gën ndax yéen ñëpp tooñ ngeen ma def ngeen ma loo xam ne suma leen toppee yéen ñëpp kenn du mos aljana maa leen toppul kon yéen itam bu ngeen toppantee du baax wa an taafoo la lakum ngeen bale moo gën ngeen di toppante kon nañ bale maam maam may ñaan na ko na bale ma leen baal amul problème parce que xaj na ci moom parce que loo xam ne xaj na ci yow rek mën nga koo bal même li xajul ci yow sax mën nga koo baal ndax yàlla mën nga baale lépp parce que bale dafa baax jullit pire day bale waaw day baale parce que da nga mer danga nga danañ la tooñ nañ la def lu ne waaye nga nga xool sa diggante ak sa borom ak li sa borom wax ci yow nga bale yàlla nee na ngeen bale bale moo gën na ko baal na leen baal rek waaw parce que baal baal ñu ngi liggéey ci média yi ñu soññee ñu gën a xam suñu suñu ah moo yéen itam kay xam ngeen li leen war <laughs> li leen war kay mooy ngeen góorgóorlu rek ti juba rek te moytu yenn kàddu yi nga xam ne dafay yàq bu ñëwee ci seen eh, ku wax ak yéen wax leen kàddu boo xam ne kàddu bi day yàq jël leen rek bu leen paree bu leen ko teg waaye bu ngeen ko tegee rek taar réew mi waaw ah, ta kàddu buy taar réew kenn du ko teg mm-hmm. waaw gaa yi nag gaa yi am na ñoo xam ne loolu la ñu bëgg nañ gaaw oh nañ gaaw li Iran wax koy laa ilaaha illa nañ gaaw ngeen taal ko man ñu koy yóbbu ma waaw ah ngeen taal ko ñu koy yóbbu ma oh, euh, fekk fekk non loolu loolu loolu parce que ku gis lu jaadu xam nga ku gis lu jaaduwul xam nga am na ñoo xam ni suñuy wax ci euh, ci ci ci média duñ contrôler duñ contrôler dañuy dañuy ŋàppaar di wax rek di wax di wax su paree nag ñu teg ko mu naan waxuma ko waxuma ko fekk moo ko waxu waaw waxuma ko jubluwuma ci loolu gars yi tegal laal na ko gars tegal la ko nag ngay déglu ba mu leer na yaako wax am na sax loo waxo luñ tegul nga ne waaw kon maa ko wax léegi nañ ma baal <laughs> dama juum dañ ma baal yooyu yëpp nag bala la ca fekk ngay moytu rek del moytu rek ah loolu de xaw ma ci dara yow daal yaa ko wax yow daal yaa ne dëkk bi ñëppay dóor ma ne laa kon de da ngeen di dóor waaw dëkk bi ñëppay dóor yaa ko wax waaye nag am na ñu dóorul parce que lu tax mooy dañoo bàyyi seen xel seen yàll seen diggante seen borom ba dóoruñu kenn talaatuwuñu kenn mbéjuñu kenn rëkkuñu kenn dañoo bàyyi ku nekk la nga yor bàyyi ku nekk la mu yor boo ñaanee buñ la mayee baax na soo lebee buñ la lebalee di nga nar a fay baax na waaye bul bul trian bul tappale bul def ay ay dóor ci suuf parce que tappale baaxul tappale baaxul ay wor nii ay tappale nii ay dugal fii génne ay baax baaxlu ci baaxoo ay yooyu yëpp yooyu yëpp doxul da ngay yor benn jikko rek mu jeex waaw yor benn jikko rek mu jeex waaye di dóor fii di mbéj fii di mbëkk fii di rëkk fii yooyu yëpp yooyu baaxul mm-hmm. yooyu baaxul parce que boo ko defee itam na euh, ala kulli xaal dana feeñ xam nga nit ñi loo bëgg ñu xam ko mooy nañu xam ne yàlla moo ñu tiim te yàlla moo ñu tere moom mi ñu tere li mu ñu tere ñu ngi koy def ti mu ngi koy gis loolu laa bëgg ñu xam ko nañu xam ne yàlla waxul nit na gis nit nit yoonam nekku ci moromam mm-hmm. nit yoonam a ngi ci boppam waaw bali insaanu ala nafsi basira kenn ku ne xam nga sa bopp waaw kon nag woo fi anfusikum afala tubsiruna ku ne na dugg ci ruqu man maay kan soo ko defee rek nga dana da nga rëcc waaw da ngay dugg ci ruqu boo xam ne da ngay seet yow yaay kan boo moo gën waaw bu ko defee boo ko defee boo boo dee boo jëm ci nit boo ko bëggee mbëkk ne ah yàlla tere na ko de boo ko naree dóor ne yàlla tere na ko de loo ko nar def rek ne yàlla tere na ko boo ko defee ñu tuddee la ko ragal yàlla waaw kay waaye booy topp sa di jullit yi def yi doo jullit di jullit yi def lu bon jullit daal xol ba day nice day rafet xolam day rafet rafet rafet trop mu am yéene bu rafet am yéene bu baax koo koy jullit waaye bu sa yéene baaxul doo doo dara doo dara dara dara waaw yaakaaru dugub mujj gi de mooy sant yàlla rek ngeen ñu ñaan président rek mu gën a muñ moo xam nu ko fi dese nag yàllaa ko xam waaye daal nag yi a muñ na teey na muñ ti teey ku dis nga ñaari seytaane lay laxasoo fa ngay jeexale boo demee ba ca cat la fa la seytaane laxasoo pour yàqal la li wees waaye bu ko nangu sëñ Cheikh nee na seytaane ku dëgër bopp rek laa ragal boo dëgëree bopp bu la bi fii nga wàcc nga yéegaat rek moo xëccaat da nga wàcc nga yéegaat rek nga wàcc nga yéegaat rek nee na sa yéeg bu mujj nag ah, kii waaye su booxum kii kii kenn mënalu ko dara nit dafay dëgër bopp ca la mu def muy lu baax mu ngëb ko téye bu na moytu seytaane bu baax a baax a baax a baax na mooy seytaane bu baax a baax a baax na mooy seytaane bu baax a baax a baax parce que li ko dese bëriwul bëri na waaye seytaane mën na ci laxasu ba mu yàq lépp lépp lépp lépp waaw ba kenn dootu gis dara waaye nag ku def lu baax da ngay góorgóorlu nag ñàkk ko da ngay góorgóorlu ñàkk ko ku def lu bon da ngay góorgóorlu ñàkki ko ba mu dem nga ñàkk fa lu baax àdduna noonu la lu baax lu bon a fi lu baax na ku ko def da ngay góorgóorlu mu sax waaw sax garab la goo xam ne daal war naa law war naa am ker war naa féex waaye garab bu am dég moom neexul bu amul dég neex